nangu leen nangu leen nangu leen ki war a coow li mooy coow li mooy Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa mi nii ma jaloor jaloor bi mu gënee yàgg na lool waaye ñu nit bi ko nangoo yàgg na lool lu tax li tax fii fii topp di jëf fawqal xusuur هدية سنبقو إلينا قسمة أذلية أنا صبي سيدنا محمد محمد عليه وسلم ci la borom taar ya taaroo Yuusufa yaa ko abal taar ana soppi Seydina Muhammad sama xel dem na ci Seydina Muhammad ñeent fukki guddi yi ma teg sa dund fa mawtu rasulu jay demuk Cheikh Mouhamed sama turandoo ak Cheikh ndeysaan ni ko waxuma sama borom digoon na la ci alquran ni wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda bu yowmal qiyaamee nee na dina la may ba nga kontaan Seydina Muhammad siggi ni ko idan fa inni laa arda man yonent du ma kontaan fekk sama xeet ma ciy gis kenn kuy dugg safara ku bëgg yonent bi jógal sa keneen ku ñëw ku ñëw ba sukuraat sa dara gisuma ci moom njeexitalu kuy tukki kuy tukki xàmmew moo ko ci xale yu góor yi ci koñ bi koñ bi sallallahu alayhi wa sallam xàmmew moo ko ci xale yu góor yi ci koñ bi ci koñ bi saa nga daan koy kooku mooy dokkatu man neex yi kooku mooy def xale yi ay yirim ay yirim kooku mooy tëjloo jigéen ñi ay mu la soo xamul ki may wax ki wax mooy Azraayil malakul mawul maw ubbil ko buntu bi mu dugg mu ubbil ko buntu ba mu ñëw ci nit Seydina Muhammad mu ni ndax dangaa ñëw di ma jël si am dangaa ñëw di ma siyaare si mu ni ko sama borom moo ma jox ndigal nee na naa la tànn loo ma bu la ci neex rek naa def loolu bu la neexee ni ko Jibril wax na ma loolu waaye man soppeeku nag mu soppee muy ji laa ci xam kay jigéen ma def sa liggéey ma ngay naftaan naftaan ruuga ngir bañ koo gaaj baya Seydina na mu mettee ci man nii la dara méttee ci sama xeet mu ni ko sangu jàmm nii mu méttee ci yow ñi gën a baax ci saw xeet dina méttee ci ñoom façon mu juróom-ñaar fukki yoon te benn sukkuraat moo gën a métti juróom-ñaar fukki jaay si luy ci benn placement juróom-ñaar fukki rab yu sax laa ilaha illallah sidna Muhammad daan ni ko loolu sama xeet du ñu ko attan waxal sama borom na dajale sukkuraat na mu méttee Jibril ñettee leen mu ni ko Jibril waxal sama borom na na mu méttee tey ngir sama xel bañ a yëg dara ngir sama xeet bañ a yëg dara noona la def malakul mawtu di ruuga ngir bañ koo gaañ mu ni ko téyel sa lii metti ndax nii mu metti ci man nii la nar a mettee ci sama xeet jërëjëf mu ne ko sangu jaam ñi ñi gën a métti ñi gën a baax ci saw xeet dina métti ci ñoom façon juróom-ñaar fukki yoon te benn sukuraat moo gën a métti juróom-ñaar fukki jaas yu ñuy taw ci benn place mbaa juróom-ñaar fukki rab yu sar laa ilaha illa allah ma ngay ñoon di ruuga ma ngay xool kaw asamaan naan laa ilaha illa allah amul benn buur bu dul yàlla inna lil mawti xaraara ndekete dee am na tàngoor di ko di ko di ko wax ba yàgg mu naan rabbi rasul ala àndandoo bu mag bu kawe ba moom laa soxla rabbi rasul ala àndandoo bu mag bu kawe ba moom laa soxla di ko di ko ba kenn déggatul baatam ñu xam ni sangu jaam ñi dem na segam Seydina Muhammad moo dem ba nu fi at mi atu avertissement na ngeen ko bàyyi xel xalaat leen bu baax ñi ñu ñàkk atum ren eh, eh, ñi ma ko war a wax ak ñi ma ko warta wax waxu yàlla lay wax kaay leen ñu dellu ci yàlla kaay leen dellu ci yàlla jot na bala mënoo woo kaay leen kaay leen dellu ci yàlla jot na bala mënoo woo ki woo Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci woo Seydina Muhammad ni ko kaay wuy si ma te da jaar ci bàmmeel kooka jomb te keneen xam leen ni yàlla rek a yàlla dëkki mu jël moo ko gënal ci nit ñi moo tax bu ñu yenn yi dalee ñu war koo attan bàyyi leen xel yonent bi coow li bari na koy takk lu mu baax baax lu mag baax baax mi ko jëlee ci Seydina Muhammad ko mën a ko juum na eh, eh, moo waral suñu noy moo waral nuy lekk ak naan delloo ko njëkkal mooy xam fan mooy palaasam ku ñu wax wax ji nii wax ji nii la ku ñu ko waxe nenee ni wax ji nii la ñun dey sunu sëriñ nee soo ma dee siyaar soo bëggee sa si aar nangu boo waxee li ngay wax ba noppi nee na nag ma wax yi baat nanga di ma bokkaale wu ma dara ak sa borom teguma kenn ci palaasu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye sa barke la nee na ku ko wax foo ma nañu delloo Seydina Muhammad cër tey jii guddi gi li ko sabab loolu la ak xam ni yàlla rek ay yàlla yomb taray ma jomb taray naw jomb taray baay jomb taray yaay jomb taray xarit bëggal ko la neex bis dina ñëw ngeen tàqali ko soxnaam moo xam taalu beeg sëriñam moo xam yaayam doomam moo xam baayam doomam moo xarit ak xaritam kay leen توك سيدنا محمد محمد يمرو دالاي انا صبي يونن واسا mbokk yi asalaamaaleykum jataay buy dooragul dama bëgg ngeen may ma ma nuyu mbooloo mi ci turu suñu kilifa ñun ñëpp muy Cheikh Sidi Ahmadul Bekkaay ibnu Cheikh al Bekkaay ibnu Cheikh Abou Mouhammad ibnu Cheikh al Burhaman mi xalifatul aam li tariqati al Qadiriya di ko ñaanal ak yàgg fi lool ak wér ba liggéeyu maamam bi fii mu fekkoon alhaaji maam bu Mamadou fa tabaarakallaahu taxaw fi mu continuer ko ba ñëpp gis ko